salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk SBT Média ñu ngi nuyu kullum kuy safoo SBT Média di ziar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay rawatina mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu fu waay nekk ñu ngi lay fekk jox la loxo di la ziar bu baax di jox sa wàccuwaay waaw di ñaan suñu borom tawat bi fi wàccee suñu borom saafaraal ñu ko si barke Seydina Mohamed mi commune 19 bi ñu ngi ñaan suñu borom teggil ñu ko ñëpp ndax Sénégal moom dafa xat te am na jàngoro yoo xam ne xaju fi kon ñu ngi ñaan suñu borom teggil ñu ko ñun ñëpp bàyyiwuñ kenn bépp dëkk bu moo xam ne feebar baa nga fa rek yàlla suñu borom teggil ñu ko tey ñu ñëw tëngeej nag ku ne tëngeej ne cosaan ku ne tëngeej ne ay ndaanaan yu fi dëkk ndax bëri na champion yu fi dëkk suñu papa formaan fi la dëkk papa Gambu Gueye fi la dëkk bari na ndaanaan yu fi dëkk yoo xam ne tey ji ñu ngi fii tëngeej sax doone tëngeej nag ne ndawraam bi ne gumbe tey ñoo fekk si ndaanaan di xale di yaakaar moom ma nuyu ko mbër nuyu naa la waaw Idrissa ginnaaw bi sant yàlla julli sëriñ bi xam nga dañ naan bisimilah onze bi yàlla naan jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jaral ak moom Cheikh waaw loolu bu ñu ko waxee xam nga day safa waale ndamoo tiitaroo xam nga ñun bàyyi faa lan quoi loolu dafa leer dëkk yoo xam ne ko si ñun. waa bu loolu weesoo nag dañuy nuy aussi waa Tëngéej di la sanaat bu baax a baax a baax di leen gërëm parce que ñun fi lañ dëkk te mënuñ am lu ëpp Tëngéej mënuñ amit lu gën Tëngéej parce que Tëngéej lañ dëkk fi la ñuy yeewoo fi la defee lépp xam nga di nuyu waat waa Tëngéej bu baax baax a baax a baax rawatina nag Daaru Rahmaan gi nga xam te ne man fi laay yeewoo muy sama gox fi ngeen ma si tey jii nii nii nii tey waaw maa ngi biir Daaru Rahmaan di nuyu di nuyu waa Daaru Rahmaan yëpp aussi tamit di nuyu waat euh, SBT Média ñoom ñi nga xam te ne tey ñoo may opportunité bi tamit xam nga a toog jàkkaarloog euh, sénégalais yi xam nga war a fas yéene waxtaan ak ñoom quoi. aussi tamit comme ni ko waxee rek euh, di ñaanal sénégalais yi feebar bi xam te ne dugg na fi muy euh, Covid bi yaa ngi dégg pandémie bi actuellement xam nga xam nga actuellement pandémie bi waaw. waaw ak gis nga. lii lan la. waaw lii sama gel la rek xam nga gars yi affaire comme que yi ak gel yi bàyyi mooy faj feebar bi. waaw ñu protéger wu rek bàyyi def masque yi xam nga ak gel gel moom du tàggu man quoi waaw parce que on sait jamais raxas loxo yi muy nice xam nga idi sax loolu damay laalal sax yow avant affaire yi gën a sori yow laal xam nga waaw laalal sa waa ji Ibrahima Faye góor gi Guèye waaw bu ñu defee nii comme gars nii la ko waxee. ñu def nii rek xam nga saa su loxo bi di tooy rek xam nga ñu mujj suñu bopp quoi mu caale képp ki nga xam tamit jege nañu noonu dëgg. léegi teel man wala. teel man wala. xam nga lii nii soo gisee ñu koy def dafa mel ni. pour fagaru la sa fagaroo gën faju en tant que lutteur tey lan ngay wax ci Covid 19 balaa ñuy dugg ci làmb ji feebar bi loo ciy wax en tant que lutteur yow. waaw euh, Idrissa feebar bi li ma ciy wax mooy que ne nii xam nga feebar bi métti na lool lool lool lool. waaw masque ko dindi tur ñu mën a waaw dinaa ko dindi quoi parce que xam nga rek <laughs> dama doon dama doon quoi. waaw voilà dama doon dama doon sensibiliser. waaw dama doon sensibiliser. maanaam di wanaale gars yi ne affaire bi comme que nee nañu carrément nañuy sol ay max xam nga di la gel bi chaque instant moo tax xam nga rek max bi moo tax ko quoi di wan gars yi tamit xam nga nii la war a demee. waaw li ñu wax ci euh, pandémie bi mooy actuellement nii nii nii xam nga fi ñu toll nii xam nga fi ñu toll nii tey tey tey tey tey temm maanaam affaire yi yéem na Sénégalais yi quoi waxuma la yéem na monde entier sax la yéem rawatina na ñun Sénégalais yi xam te ne nii xam nga. suñu doole xam nga eggul foofu noonu quoi xam nga ñuy sensibiliser waat quoi askan wi quoi xam nga di waxat ak ñoom bu baax a baax xamal na gars yi RCC bu nañ toog suñu kër yi xam nga di def lépp li xam ne mooy matukaay yi nga xam te ne moom la médecin yi joxe médecin nee nañ bu ñuy génn nañuy sol max nañuy raxas suñu loxo ak saabu xam nga ordinaire bi xam nga di laal gel yi mais bàyyi nañ jël ko suñu rek parce que tamit bàyyi tawat bi bàyyi am na de barki maam Cheikh Fall bàyyi Fall yéen laay waxal sax bàyyi xam nga ñun bàyyi Fall dañoo te yàlla rek tax ci barke maam Cheikh Fall lan mooy tuwaay yi góor jàpp ci góor rek la loolu wax ci fànn. góor ànd ak góor di dem. maa lax la ba fay yàlla rek Fall. waaw ñu gis tey message bi nga lancé en tant que porteur de voix lii la mbër di def ndax mbër du pour takk ngemb kese dañuy bugg ngay lancé message yéen i yéen i yi sa yéen am di jàmm yéen soppee yi ñu tourné nag ñëw si làmb ndax ku ne Petit Baye Fall xam ne làmb waaw Petit Baye Fall li ndaanaan Petit Baye Fall la a dugal si làmb. waaw euh, Idrissa waaw Petit Baye Fall dafa nekkoon benn boy bu sob juddoo jàmm gën si Kambaaw juddoo jàmm gën si Kambaaw màggee jàmm gën si Kambaaw toxu si Tëngëj 2005 2005 laa toxu Tëngëj bi ma ñëwee Tëngëj nag boobu dama ñëw doon jàng xam nga boo bàyyi gu ma jàng école maa ngi doon jàng école. yaa ngi dégg man nag football laa gënoon bëgg quoi idi bu ñu waxee dëgg quoi parce que man nekkoon naa école football fii euh, Renaissance école football Doudou Diop fa nekkoon nekkoon football jour di football. mais au fil du temps may dem école football doroom mu mbëri ñoom ndeysaan waaw damay dama dama ko waroon nuyu sax si émission bi laa ko waroon nuyoo si njëkkal émission mooy mooy suma coach coach yi ku si mel ni Malick Thiombane ñooñu ñoo ma motivé ma nekk mbër ay ay bars amoon na barbar magu magu booy fay mii moo fi nekkoon mbër si bi fii. waxuma la mbërën mbërën tuddee mbër laa la wax mbër mi man maa ne ko supporter ab Ole Gën si man Petit Baye Fall kenn ko xëpp ndox kenn ko xëpp suuf kenn du ko xëpp dara yaa ngi may dégg ak di war a def école football di gis mbëri di contact may jàdd si ñoom di bërentu di defante yooyu xam nga virus bi di dugg xam nga la dugg sa pas à pas virus dugg si man quoi léegi nag booy bi grand moo nekkoon mbër man maa nekkoon supporter am fu muy dem si laa làmb ñooy ànd bu jëree xeex damay xeex bu jëree xuloo damay xuloo lu mu jar dama koy def man maa nekkoon supporter am léegi nag après loolu virus di ma dugg di ma dugg ba tey Petit Baye Fall nekk mbër sama yaay bañ sama papa bañ mais sama yaay moom bañul à 100 pour cent quoi parce que moom séeréer la dafa juddoo dëkk cosaanu làmb mbuy Njaay Njaay Fatick xam nga foofu dëkk cosaanu làmb la yaa ngi dégg mais sama papa moom xam nga waa Saloum la moom daanaka làmb soo gisee mu bañ ko mun a carrément mbëri man matuma mbër foofu la doon waxee soo xee mu ne ma carrément mbër day gudd day rëy mais yow matuma mbër xool leneen ma sob rek. di dem di ñàkkante di bëre dafa am ma dem bëre gañe saako ceeb ñoo teg ko fii te di nelaw ñu yeewu ko indi li ñu ne Petit Baye Fall moo ko indi ba benn am na suma rakk bi nga xam ne moom neew fi quoi Mouhamed la tudd mu ngi ci mais xam ne kooku moom xol paa bi la quoi mooy doomu papa sama doomu papa kooku moom xam nga say moom am xam ne mooy sa sa xarit mooy sa xarit. merci may dem làmb nag muy jooy dama koy yóbbaale ma yóbbaale ko sa papa ñëw wàcc ci kër gi ne an Amet ñu ne ko Amet de ma pëdee an làmb ja sam papa taal otoom sur le sang. ñëw pour jël si ko mais bi mu ñëwee dugg si biir làmb yi pour jël si ko fekk justement si géew bi war a te jamono boobu ki ma waroon bëril moom moo ëppoon dayoo quoi moo ma sut ëpp ma doole xam nga mais mu ñëw yem si combat bi taxaw xaar ko. taxaw di seetaan. waaw ma bëri daan jële bu rëy mu jël euh, suma rakk bi ànd ak moom ñibbi si quoi ñu ne leen ne saa waay champion la kii mbër la. moom tamit si la commencé di nangu ndànk-ndànk ma it may góorgóorlu nekk si làmb ji di rampe di dem si àll bi muy métti lool may dem si àll bi di ñibbi si des fois ma egg demi final quart de finale ñibbi si ba jour ma njëkk a indee nag c'était en 2008 xaw ma 2009 en vision mondiale jaxaaw su ma jumul. 2008 waaw. ma jugee Foundiougne laa jógee mbam laa nekkoon jamono yi maa ngi may Foundiougne. mbam loo ko damaa dem am am final gaage. ñàkk taxawal gaage bon gaage Mody wala gaage Serif wala gaage bokkal ban gaage la. gaage <laughs> Serif <laughs> yoo xam nga gaage ñetti gaage la. waaw gaage Chérif laa demoon laa laa laa dem parce que balaa ma dem gaage mbam laa jugee. mbam loog damaa bëri ci mbam loog euh, poids léger bi laa bëre ñàkk quart final dem poids lour yéeg poids lourd bëre ñàkk euh, deuxième deuxième deuxième deuxième tour. si lendemain bi ñu ne ma gaage day tëgg ma dawali gaage ba ma demee gaage man maa final woon gaage. bi ma sa première waaw sama première finale. yaakaar la man ak euh, Jijak Ndong. Jijak Ndong mbër bu ñuy wax Jijak. waaw. waaw sama première euh, final foofu maa ngi moom la woon ñu bëre ko final bu méttee méttee méttee méttee mais par la suite soo xoolee. arbitre yi ñoom xaw a yàqal quoi parce que man jamono yooyu maanaam tey dama nekkoon jeune bi nga xam te ne nii tamit xam nga am naa expérience si làmb tuuti nag mais fukk bi ma ëppoon quoi maanaam dama woon jiital sama xel si làmb fukk laa jiital. xelu xale bi moo doon dem. merci fukk laa la jiital maanaam tey xam nga làmb affaire de li ma ko jàppoon du làmb quoi affaire de woyu affaire de teg sañ-sañ yooyu mais loolu du làmb de mbër muy teg sañ-sañ dañ daan bu doon ma ñëw kenn du cam ah, maa ngi ñëw si kooku noonu parce kooku sama idole la man bi may bëri mbabat Baye Cheikh daanoon bindu te nga ñëpp xam nañ am na ñi xam ne dañuy wax petit Baye Fall de Baye Cheikh nañuy wax ba tay ma tegal la loolu mais dama expliqué ci àll bi rek ma finaalu gaage man ak Jijak ñu bëri ko final bu métti métti métti métti métti métti ñu dem presque jamono yooyu amul ay temps cinq minutes ak yooyu non la quoi nag instant moom man maa ngi bëgg a gagné combat bi tamit ma forcé ko attaqué ko attaqué ko ngadd yi daw song yi daw muy arrière ma koy ngadd ba sama loxo bi muy may kii mu rëcc mu sigi sama loxo dal fii jàll mu jàpp bët bi xam nga affaire mbër rek yuuxee eh, arbitre bi ñëw avertir ma te boobu temps bi ay deux minutes ay trois minutes ma xam ne tamit lu mu deedee deedee bu temps bi ma forcé combat bi mu daan ma. mooy sa première défaite. mooy sama première défaite foofu àll bi. mooy sa première finale sa première défaite. première défaite sama première ñàkk finale foofu. léegi nag bi ma jógee bi ma foofu loolu c'était en 2008 la boobu ba léegi ren laay door a ñàkkaat ren. fan nga ren maa ngi ñàkkaat final euh, dëkk bu ñuy wax Teela. Teela mu ngi nekk euh, ci te euh, ba xaw ma arrondissement la xaw ma département la fi jaxaw fa la nekkee boor boobu la nekkee ci biir parce que côté boobu bëri dóor la def amul bëri simple. waaw final man benn mbër bu ñuy wax Boña bu bu Thiès waaw Boña bu Thiès la final. waaw xam nga fu nekk nag mais Thiès la dëkk daal. waaw ñoo final woon foofu man ak moom final bi. ba pare bi nag nekk na final bu méttee métti parce que tax mu métti woon mooy que nii euh, Boña dafa ma xawoon sàcc doole foofu tuuti. mais nag bëri naa expérience ba jël amul quoi parce que sama baaraam bi moo xawoon a euh, mel lu xam nga bu métti ma géré combat gérer mooy que ne dañuy xeex xeex xeex xeex mais après maanaam recul yi may def quoi moo tax arbitre di ma jox avertissement. yaa ngi parce que instant gaañu naa mais maa ngi force biir làmb di ko bëre waale bëgguma kenn yëg ko quoi maa koy force di ko bëre te it tamit bëgguma mu daan ma. man ñu ngi bëre maa ngi koy négocier di ko négocier ba làmb ji jeex par point la ma gagné quoi final boobu. à ñooñu tey jii simple bi maanaam poids yi ñuy wax nii ñen xam ne ñii daan nañ daan nga leen waaw pas loolu ñuy wax nii ci simple bi man euh, bëri naag dama man dama bëri mbëri mag yi ba mag yi xam ne ñoo fi nekkoon téye làmb man dama nekk booy bu ndaw dem adressé Senghor muy métti may dem ba ay troisième tirage boobu adressé Senghor boo fa xool doo fa gis booy ba ñu sarasene woon ma bind sama tur ma waroon dem ba euh, waroon ma waroon bokk euh, si compétition yi dem CEDEAO jëloon tañ sama contact jël sama numéro téléphone jël suma lépp mais par la xam nga boobu làmb ji maanaam dafa amoon féete quoi parce que gisoon nañ làmb ji boobu poids léger yi Cheikh moo fa newoon booy Cheikh Ndiaye. Cheikh Ndiaye waaw pas Cheikh Ndiaye ñaar de Cheikh Ndiaye. Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye parce que boobu moo fa nekkoon woon favoriser mooy kay mooy que euh, que ñu def qualification mais nekk nii say morom parce que ñoom dañoo am dañoo dañoo am drapeau da mbër mi xam ne la kaay ma raw gàddu laay bëri du ma ko romb mais man aw ma loolu yow yow man drapeau bu fekkee dama koy bëre ñoom loolu mooy seen avantage nag ñoom waaye moom bi ko fi Moussa Faye fekkee rek fay jëlee merci léegi nag diggante moom Moussa Faye ñoo doon relevanté te boobu ñun ñu ngi dem adressé ngoon normalement di bëre te ñoom duñ ñëw foofu parce que leen wax dafa diis dafa am bu nekk sa adressé ngoon nga ñàkkee fa troisième tirage sa diggante ak Fodé Sarr na mujjee <laughs> waaw ndeysaan noonu la de mooy li ma la wax rek man fi ma appee chance booy yi mooy que ni damaa compétir euh, damaa bëri samay morom bëri samay grand parce que mool 1 mi ñu tudd tey ji tey bàyyi na làmb bëri nañ man ak moom ay ay ay ay ay ay bursin bëri nañ man ak moom euh, ay kan des na bëri na ay poids yu bëri yoo xam ne bëri yoo ñoom ay baabu warak fii boobu Fatick ña jaay Fatick mu ngi nekkoon mise bi mu ngi nekkoon trois cent vingt mille francs trois cent vingt mille te jamono yooyu trois mil boo ko déggee balaa nga koo déggaat yàllaa xamante boobu 300 amul ay nag ñoo fi xewoon rek. ay nag amoon tonne ciment télé xar. merci ma ñëwoon ngénte foofu Fatick ma ñëwoon ngénte làmb ji am ñu forcé ba ma ngemb bu bëri mer ngemb mais keroog maa demi final ma nag euh, Tika Aziz Njongoloor. boobu Tika mu ngi toll si diggante dem nekk ngandam mbër bu taxawee mën na maa bootee fii ba Njongoloor du ma teg. tafaatin la merci te keroog bi ñu bëree euh, daanu ma de par point la ma génnee. parce que nangu lu bëre Pawlish bu toll nii moom nangu lu bëre dafa sëgg dira am rek di ma topp man am ma fenn fu ma jaar du ma daw si kaw mu daan ma heure bu ñëwee ko def déplacement wër ko euh, au fur et temps temps demi finale ma am 10 000 demi finale bon may ko may ko maire yi xam nga boobu sama bàjjan yeeg sama maam yi foofu bëgguñ ma bëre ne leen bàyyil bëre bëre baaxul dafa am gàllaa ji xam day yàqante ak nangam sangam xam nga te man gëwuma loolu quoi man xam nga lu ma gëm man nit ki ne xam ne dama bëgg su ma bëggee benn affaire nii nii nii non nit wax lu ma dégg tant que aw ma loolu man nu laay laay fee quoi waaw. nga rampe si simple bi nag ba ñëw si arène bi nag. ba ñëw si arène sa premier combat arène nag fa ñuy dugg si na fi ñu toll nii. ndeysaan sa premier combat arène <laughs> man euh, euh, lu gën a la ñuy bàyyi Ould Taya sa boobu ndeysaan may door a bëre arène. entraîné loo mës a entraîné si làmb di yeewu suba di daw ngoon entraîné ba bu ma sumee ko ci làmb ji keroog olympique de Ngor lañ koy bëree mais barke Serigne Ba Mbacke damay jël làmb ji Baay Faal damay daw wëndeelu ay 100 mètres daw accéléré ba jantu xam nga wan gaa yi ne man pare naa ba pare indi fukk bu bëri aw man expérience yu bëri dóor maa ngi doon bëri dóor si àll bi di jël ay drapeaux mais expérience su arène aw ma ko. xam nga arène bëri arène dóor ak bëri si àll bi dóor bokkul bokkul. public yi léegi nag. am moon expérience su euh, arène ba pare nag ndeysaan boobu mu nekk sa premier combat ma yóbbu presque lu mat 5 car laa yóbbu woon sa premier combat arène am na beneen booy bu doon bëri moom yóbbu 4 car xaw ma 5 car ñu yóbbu 10 car image yooyu ba léegi gars yi bu ñu publicité ay làmb dañ koy wane mu nekkoon 10 car yu jógee dara xam ne ñuy fekk si stade ma ñëw bëri ulu taaya ñu bëri ko bëri bu neex mu daan ma. sa première défaite première défaite ma ñibbi si fii di ko jooy jooy yu sa mbappa woo ma ne ma kaay ma ñëw mu dugal ma si ginnaaw ne ma nag bi di jooy nii kan moo ko moom. ma ko maa ko moom mu ne ma foo ko jëlee ma ne ko si làmb laa ko jëlee mu ne ba nga koy jël ñaata mbër nga daan ma ko daan naa huit mbër mu ne nag bu ko doon dundee fompal sa yoroon koñ nga sol sa yére bàyyi làmb dem defi leneen parce que ñi nga daan yëpp ay mbër la ñu woon te huit combat si kër gi ji làmb sa kanam ma demal entraîné boobu nag waa kër sëñ Modou yi dañ ma teg sax parce que ñoom maanaam tey tey mbër mi nga xam te ni maanaam tey xam nga waaw yaa ma gën a xam. waaw day indi mbooloo duñ la bàyyi ci ginnaaw. biñ may bi ma leen bi ma leen di verse xaalis ci kii yi dañ ne ma carrément boo bëggaatee semaine bii di ñëw ñu joxaat la làmb léegi nag comme que man damaa jógee si defaat ku ko ku may fañ mer ne leen waa na la kan. ñu joxaat ma euh, Sam Fall lañ koy wax doomu Bawal. doomu waaw chauffeur Pape Aline la Pape Aline Walf TV maa ngi jégalu ci kii bi quoi mais chauffeur Pape Aline la. jox ma ko ma jël ko ñu dem euh, wala euh, fee Esat Ndiarème. Issa Ndiaye lañ dem mu ñëw nekk nag ndaawa bu ponkal ndaama yooyu xam nga gaay naa ma non war a woon jël combat bi saa naa sanga ma ne eh incha dama koy daan. arbitre depuis combat bi daw ma dóor ko mu daanu parce que moom laa njëkk am kaaw si làmb ji dóor ko mu daanu ñu tëj ko cinq minutes si làmb ji mënul jóg. arbitre yi wër ko xam nga si la door a jóg quoi ximbale ko boobu man jàll naa ba ànd si supporter yi waaw. ma ma jógee foofu euh, sama troisième combat ma dal si bëloo. ma si bolo jour Zos ak euh, guy gi. bëloo bu dubalees. bëloo bu dubalees waaw bëloo bu dubalees laa dal mu nekk euh, jour Zos ak guy gi waaw moom it mu nekkoon combat bi xam ne ne moo dàq da combat at yi at boobu combat yi amoon ni boobu combat moo ci dàq c'était extraordinaire. lu tax nga ne moo ci dàq. waaw parce que euh, Père Bagaye moo tax ma xam ne boobu moo ci dàq parce que Père Bagaye Mbaye foofu lañ jugee xam nga. boobu ba léegi saan mu nekk son père quoi su may bëri sax gis kontaan nee ma carrément yow yow man man mu ne man gis naa supporté gis naa reporté nii quoi xam nga père Bakaye Mbaye mu reporté ba yuuxu woo la la xam nga dafa garaaw yaa ngi may dégg yuuxu kontaan ma pare euh, plateau yi di ma xëccoo boobu ñaari plateau ma amoon Sen TV ak 2STV ma pare ñu may xëccoo ku si nekk naa ma kaay fi ki ñoom di may xëccoo kaay njëkkal toog fi njëkkal toog fi xam kon loolu sant yàlla la kon xam nga ne combat bu man xam nga combat neex la waaw per bagaay mbay xam ma reporté si lu neex a neex wax dëgg yàlla xam nga pare ñu dajawaat man mais booy foo jàngi bëre mu la jàngal bëre ku ñëw ma ne ko booy baa ngi nii pour bàyyi faa la ngi nii xam ko loolu moo tax ma ne la combat bu neex la waaw sama troisième combat loolu la. mu waaw quatrième combat ñëw ma nag euh, nay leer ah nay leer la de quatrième combat non quatrième combat booy jogo quatrième combat ma ñëw am booy jogo am booy jogo. ñu nax ma foofu maam ndax bi mooy que nii booy jogoo c'était sa deuxième combat xaw ma premier combat deuxième combat xaw ma premier combat am la moom man maa ngi nekk sama quatrième combat. deuxième combat am la waaw deuxième combat xaw ma ko mosuma koo gis ñu ne ma waaye yow baa Kassim Modou Ndiaye ñoo ko tëgg tamit xam nga jëlal ma jël parce que man ni nga gisee nii man barke Serigne Ba Mbacke bëri naa ba fi ñu toll nii mais man sama adversaire xaw ma leen ñuy bëri si stade bi daal di xamee comme jogo loo mos dal mu ñëw jogo ñëw stade bi bàyyi ma si jogo si sama supporter yëpp toog jël ndënd yu teg suuf toog def nii booy def nii booy def nii course yi sax xëcc sées toog def nii yaa ngi dégg waaw ñu ñëw booy jóg a nekk nit ki xam te ni maanaam macha allah maar day taal bi presque deux mètres yi manqué tuuti am doole ba foo ko natt wees na ko léegi nag ñu ñëw ci làmb ji mais man Petit Baye xam na nga gisee nii gëm-gëm ak sañ-sañ laay doxee mooy li ma la wax sànq rek barke Seera Fall sama bët bi lu ma si teg loolu sama fit du ma ko xañ ma am jogo ñëw si làmb ji jogo su meeku daw per Balla Gaye ñëw na ko jogo eh mu ne ko ne ko kii koy dóor dóor ko dóor ko dóor ko. Ah, ak keneen des na beneen gaan may facture bi tam xaw ma na ko yàlla tudd xaw ma nan daal ñii moom it na ko jogo kii dóor ko dóor mu daw daraag ànd ak gaa yow tey nee naa la ñii ma ne ko booy mu ne carrément affaire du fii de ci biir géew bi la. saa bi ne pipe que le yaa ngi ma dégg mu mu jaaxal euh, samay supporters lool waaye mais combat bu ma leeree ni dama koy daan comme jogo. gëmatuma ma gaaw am quoi parce que Jokalante daf ma leer ne leer leer leer leer dama koy daan. surtout surtout waaw surtout bu waaw man ñuy bëre ma daan ko jëlee bu dee jëlee xam ne nii maanaam tey 28 euh, secondes la. at boobu jëli si gën a gaaw boobu si la bokk vingt 28 secondes Modou Mbaye tamit yuuxu ma yuuxuti lu rëy foofu. waaw dafa am combat boo xam ne nag. àdduna dañ cee coow côté bu ne discuter si coow bu ne diggante xeer ngor. waaw sama diggante xeer ngor ndeysaan. non avant xeeru am na yu jiitu xeeru ngor. boobu da boobu yi dañ koy bàyyi. waaw boobu woon bi bëri woon na coow lool lool lool maa xeeru ngor parce que bi ma jël xeeru ngor tamit mun naa ni du woon xeeru ngor laa waroon jël parce que man bi ñu demee xeeru ngor li tax ma ne waaw sax pour man numéro un bi la. ma ko waxee gars rek ñu ne ma non bu la baax na man ma yaakaar numéro un bi la jëlee combat ba yëgal sama nit ba pare ñu ne ma non numéro deux bi la. moo tax ma daw génn parce que wax naa gars yi am naa combat ba gars yi ñu ngi waaj ñi ñu ngi booy ñu ngi simb fan si club ñu ngi waajal ay bagage moo tax daw génn ma leen kon baax na man moom aw moon aw moon aw moon aw moon pression si boobu quoi parce que dama ne xeeru nga maa ko mën dama koy daan sama nit la leen wax quoi mais après soo gisee combat bi demee noonu maanaam sama nit tamit xam leen xaw la mere côté boobu quoi parce que ñoo ma xaw a yàqal tuuti quoi combat boobu parce que tamit nit boo ko xamee am na yenn wax yi xam doo ko xam Petit Baye Fall non ay doo conseil si mbër bi nii la mel mbër bee nii la mel ak mbër ay mbër bi da lay dóor ak ay nangam sangam. idi man bi may xeex kenn fayu ma pour ñu xeex man barke Serigne Ba Mbacke jàmm gi nga ma juddoo dama laaj leen ko. sama morom yow fondoor yëpp barke Seydou Fall làmb nii nii nii garaaw laaj leen ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen parce que man tàngalu ma si loolu barke maam Seydou Fall bu ñu xeexee tey jàppal ni weer nañ ko xeex sa bunu kër laa lay xaar heure boo génn nañuy sa combat xeetu ngor bi lañ bëgg nga leeral ñu ko ndax boobu cool dafay bari bari trop. waaw mu la bëgg leeral nii xamal ne samay nit tamit ñoo ma xaw a yaaxal tuuti quoi parce que ñoo ma topp xeetu ngor day dóoraate nangam sangam nangam ma ma siisu laa quoi dogu neen koy attaqué maa koy dóor maa koy daan te bu ma demee tamit loolu laa indaale bu may ñëw tamit boo xoolee combat bi maanaam entraînement dama ci entraîné ba am doole parce boo xoolee vidéo yi combat mu ngi fi sama combat yëpp balaa si laa ëpp maas am doole côté laa si du ma liggéey si si plat dind rek laay liggéey côté rek si côté rek laay liggéey am doole pare li ma war a pare yëpp ñëw ñëw ak xeer ngor arbi ne piip ma naaw si kawam mu def mu def gauche ma def retraite defaat gauche naaw ci kawam ba léegi maa koy pompé rek xam nga su ma defee retraite ëllëg ma gën retraite de corps laay def rek xam nga retraite ma def ma retraite de sortie nag retraite de corps laay def maanaam pour wane parce que bu doon damay damay damay dama a daw du ma def trait de corps trait de sortie laay def dégagé lu bëri génn mais déedéet day dóor ma def trait de corps naaw si kawam ñëw pompé ko bi mu xamee ne moom baaxul après dañuy def essence ñaar ñett ñaar ñett mu am mu jël ko ñemetul taxaw nag commencé di reculer man ndaw si kawam léegi nag bi ma koy songi dama mépp loolu mooy yàq xam ne distance a songee am na xam boo fa boo fa rek da ngay perte léegi nag man bi dama mépp dama mel ni ko koy dóor mu def na tëri bu ndaw ma daw ñëw léegi nag bi may ñëw sama defar dafa yàqu après dafa dafa ràccu rek ma rëpp sama ñaar loxo si kaw ba te ëmm si kaw ay sax am na benn jëlee woon ci Facebook am boo xoolee du ma contesté nag quoi ma waaw parce que loolu mënu ma contesté ba mooy loolu daan na ma xeeru ngor yaa ma daan. man bàyyi faa damay nangu de barke Serigne baa Mbacké ma daw ma rëpp samay loxo kaw kawam rëpp sama ñaar zone mu daw bàyyi ma dëw jóg parce que moom gëmewuloon loolu. ndax soo xoolee da ngeen xeex. nga duma ko ba presque nekkatul waaye song bi nga song da nga def deux temps da nga song ah, def arrêt mu mu retiré nga nga song rëpp mu fàq la nga def quatre appuis. def quatre appuis waaw parce que instant moom mooy li ma lax rek méb bi ma def moo tax parce que waru ma mébaat bi ma ko dóoree bi ma dóoree ba ko instant bi ma ko dayoo ba ko waaw bi ma dayoo ba taf ko waru ma woon waru ma woon waru ma woon waru ma woon euh, waaw bi ma dayoo ba taf ko rek dama waroon dóor dama waroon dóor benn coup taf yaa ngi dégg. gën a pompé pompé ñaari pas ñëw si kawam léegi bu arrière su ma ko mbëkkee rek instant bi laam day jeex mais nag dama ñëw ba ba jege rek mépp mu def retiré ma ñëw moo waral ma ñëw fekk ma fa dara. combat boobu mu sa deuxième défaite foofu nga gëj daanoo nag ba sa diggante ba ñëw na sa diggante ak Saloum. waaw sama diggante Saloum mooy combat bi mujj bi parce que balaa Saloum booy waalo nga fi de booy waalo tam fi la jaar. yooyu day xaar ndax li ci kanam rawli bët. waaw waaw sa diggante ak Saloum. boobu tamit coow li bari woon ñu dégg signature di wax ji Petit Baye Fall ne ko man ak yow lamb boole wuñu lu ne Petit Baye Fall wax ko fan nga wékkoon loolu ak loolu tamit si lan nga ko tegoon. waaw fi ma ko wékkee loolu xam nga mbër muy mbër mu bëgg làmb ak mbër mi xam ne ne passant def làmb bokkul Idrissa dama ne la man Petit Baye Fall damaa bëgg làmb bëggantuma saak bi di ko dóor sama gannaaw saak bi su ma ko su ma la ko yenoon doo doxoon doo dox boo doxee moom 10 mètres nga koy teg dama koy boot dugg moom si àll bi fu xam nga ko dafa bëgg làmb bokk la ki nga xam ne day tëdd Dakar gii bu demee entraînement tey su boo dem entraînement ñu newuñ si loolu ñun bu ñuy gën a tuuti si la ñu ëpp doole yaa ngi may dégg xam nga olof nee na yàkkamti yàqule koi su ma neexoon léegi léegi léegi léegi su ma boo fi ñëwaatee weer ma toll ni gars yi mais bëgguma loolu man naa màgg sama doole nga may gis ma xepp ñu jàppa da ngay wax seen nit naan ay waay waaye dafa am doole de ma loolaa gëm man a saalum bi ñu dajee man ak moom du woon moom parce que bi ma joxe combat waxuñu woon Saloum 2.